Jene Teolu, sen sen Rumi Venkat TV jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doore kat yi nga xamante ne rek ñu ngi koy daal di rumandaat ginnaaw bu ñu nag foo moom nañu daal di gis rek ci jëwrin bi nga xamante ne rek moom mi moom mooy wuyoo ci turu Cheikh Diba lu toll nag ci 230 milliards de francs CFA yoo xamante ne rek ay faux bon lañ du samay kaddu nag ginnaaw émission bi nga xamante ne eurobond daal di woon na koy def te mu amoon nag niki mois de juin nak mu nekkoon 750 millions de dollars yo xamantene dañ né 450 euh, millions de francs CFA yépp Sénégal ci jëmi bopam war na bénéficier wu nak beneen encaissement bo xamantene ci 230 milliards la waron tollu nak laata rek décembre ñeel li nga xamantene mom moy 109 milliards yi nag ginnaaw mission bu mujj bi nga xamantene rek jot nañu gis nak FMI mom mi nga xamante ne dafa séjourné won fi ci Dakar niki 6 japp 19 juin dañu dal di conclure woon waxtaan ba nopi rek dal di waxtaané nag Eh, li nga xamante ne moom mooy perspective yi ak dossier bi nga xamante ne rek eh, jébbaloon nañ ko nag kanamu conseil administration eh, de l' institution internationale ñeel li nga xamante ne rek moom mooy juin 2024 bu sukkandiku sukkandikoo ci le quotidien mu joxe boobu lay xibaar ba tey rek le quotidien la nag boobu lay réunion nga xamante ne dañoo waroon a valider lii di décaissement yi nga xamante ne rek waxoon nañ ko ni ki ñaar fukki fanak ak ñeent ci weeru juillet bee ñu génn mais mu mbir moo xamante ne rek dañ ko daal di reporté ba septembre bi ñu dëtmal journal bi nag ma ngay daal di xam ne rek que ne li nga xamante ne moom moo waral boobu lee mbir nag xamaguñu ko moom le quotidien d'information moo de nag ndax jamono ji di Cheikh Diba ndax dafa daal di def rek benn faux bon mu nekk laaj boo xamante ne rek journal bi daal dina koy laaj bu fekkee ne nag yëf yi nag moo am kon mën nañu jàpp ne rek yi nga xamante ne rek le quotidien daal dina koy soufflé du yi nga xamante ne rek dañ ko daal di gelé ñeel boobu rek loolu loolu moo waral nag ñàkk teewaayu ministre sénégalais bi kon mën nañoo jàpp ne rek yëf yi nag peut-être dañooy xool seen bopp ngir mën a préparer bu ko defee rek ñu mën a expliquer lii di bailleurs yi li waral circonstance yu nu mel foofa ca eurobond yu toll ci 400 milliards de francs CFA yi nga xamante ne rek dañoo wax ne partenaires ci seen jëmmi bopp nag jotuñoo associé mbir mu nu mel nag source bi di le quotidien nekk ma Madiambal Diagne moom moo ko daal di chuchoté jërë ngeen jëf también en ejecución.